sëriñ bi sax mu baal nee na tool yi dañu maroon lool ba fii nga xam ne sax ku daaru la dafa mel ni bu tawoon tam day xaw a doy waar sëñ bi nee na wax sëñ te ne ko wàmm ñëw mu ko loolu ne maanaam da nga defal mu ne ko maa ngi bàyyi bu ci dara ni mu ne ko dañuy def bu ñu bàyyee as arène bi su noppee dañ ko def ay ay bay waar ba ñu àgg ñu génne ji moom bu ñu ko génnee asaka day xayma bu ñu ko xayma ne nangam la ñu delloo ko ci jox ko doom te ñu ko taw daal nit ma ñëw ba mu ne ma ñëw rek fi mu toogee ne ndox mi daal di sotti ba nee na fi mu toogoon nag loolu loolu sëñ Tuubaa Xaadimu Mustafaa moo ko woon Cheikh Modou nett la ma benn benn bés nee na dafa am boo xam ne dafa dafa fekk ay ñuy baaw ñuy baaw naan mu ne lu ñu def fii mu ne ñu ne ko day baaw naan mu ne jox leen ma naa ma taw leen léegi ñu ne waa ji xanaa day wax ñenn ci ñenn ci nga xam ne ñoo ñoo ñëw ne gannaaw moom kenn rek la nañ ko jox leen laaj rek su su su fekkee tawul waxuma nangu xaalis waaye mën nañ ko def leneen mu daal di joxañ ci kaw suñu borom ci ma jëbbu doon caw de wóor na ma koo gërëm la damaa bëgg nga wàccee ndox mi léegi mu wàccee ndox ma léegi seex mu dul faadal ni ndegam kookee daa gisoon ab ab sëriñ benn bis ma tàggoog sama sëriñ ci benn bis du ma nangam gën maa gën maa gëm sama sëriñ kon nag ndox mi dina ñëw dana barkeel yàlla moom suñu borom def mënuloo ko rek ci daraje sama doomi sëriñ yii sëriñ am maam maam ak sëriñ Amadou Rafaayou ak Baye Cheikh Oballa nii ak njaboot Cheikh Modou Fall bi nekk yëpp ak sëriñ bi sëriñ mën na si maam lu bare bare yéen sëriñ bi ñaan leen Cheikh Modou Fall seen maam yëpp mooy di ndox mi ndax kat am na ay jamono doom ji wax soxna Soxna Mbakke gane àdduna ba mu dikkee mu yabal yabal euh, ci sëriñ bi njaareem ba sëriñ bi demee ba kooka demee sëriñ bi ne soxna su loolu Cheikh Modou Faare ne dafa yooyu mu ne ko góor la ma mën fi mu ne ko mu ne ko jigéen la mu ne ko ndax nañ ko soxna Sooda soxna Mariama kooku albaabu albaabu góor gi albaabu jóg mu ne ko boo demee def na maa bon na xam waaye yow sama tànk ma